ama am solo euh, euh, ci jamono bi ñu nekk ni léegi euh, ompale wuñ ne bu kilifa kër gi gaañoo rek li ci ëpp comme kër gi dafay tas comme ni nga ko expliqué ñu buggoon a xam lan moo waral nga choose that name ak lan moo indi idea boobu noonu ndax Pa dafa juddu ci kër goo xamante ne dafa am problème nu ni mel wala da nga am close family boo xamante ne ñoom ñoo am problème nu ni mel wala lan moo indi idea boobu noonu daal ci yow ba tax nga tuddee ko film nu mu ko dundee daal. waaw comme nekku ne dama dund scénario bi. dundu ma ko. waaw ndaxte doo nekk naa si kër bu nga xamante ni polygamie moo faa dox. waaye nag dañ fa dundee jaama ak salaam. waaye nag il faut nga am ay dëkkandoor yu nga xamante ni da ngay gis façon yooyu muy xew. même su la dalutee ñin fii meekas si même su la dalutee. nga gis mu dal keneen il faut nga assi assisi story pour jàngale waaye nag gis nañ ñu ñu bëri ñu nga xamante ni suñu dëkkandoor la loru nañ si loolu gis nañ ñu nga xamante ni suñu xarit leen loru nañ si loolu amaana nag su fekkee ne génne nañ ko ñi seetaan ko mun naa am xel yi dina wecceeku am lu muy defar si famille yi waaw loolu moo tax ñi cuus loolu waaye nekkul ne comme lu nga xamante ni luñ dund la waaw waaye comme lu ñu gis la si société bi nga xam ne nii mu ngee train te war nañ see asi ay jàngat yu nga xamante ni su ko defee dina mën a ci famille yi waaw loolu la daal macha allah euh, nga wax fi wax bu mucc ayib euh, ñi koy déglu xam naa ne fi mu nekk nii euh, seen xol yi commencé na di sedd te dara xewagut mhm. gannaaw bi nga xamante ne nag comme ñamal nga ñu tuuti rek ci li nga xamante ne moom mooy film bi bëgg nañoo xam ndax yow journalisme bi nga xamante ne yow yaa ngi koy def danga nga bëgg da nga lan mooy sa exactly what is in you do you want to continue or da nga bëgg a concentrate ci film bi. waaw xam nga journalism ak film making. yëpp benn la. ok because soo demee si journalism principles si moo nekk nga inform. nga educate nga entertain. te soo ñëwee si film making bi di same thing nga faa fekk. mooy ne dañuy jàngale dañuy entertain. yaa ngi gis ba dañuy yëgle ñaari fànn yooyu ñoo bokk doxalin kon nag dinaa mun a boole ñaari waaw ndegte man si film making laa njëkk bala maa ñëw si journalism waaw because nekkoon nañ fii Banjul fii représente nañ Banjul comme nu ko Black Queen waxee dem nañ ay compétition yu bëri yu nga xamante ni Banjul City Council la ñuy représente yaa ngi dégg mhm. buñ fa joggé bokku nañ ci ay théâtre yi nga xamanteni dañ daan jël ay ndaanan Sénégal asi len Gambia ñi def dara mais yàlla dimbala ñi 2017 sax ben ci suñ film ci nominé on nañ ko c'est special movie award lolu yëpp soko gisé ñi am commitment bi passion bi pour diko def ñetti principles si rek la to inform educate and entertain te xam naa ne gannaaw film making ak journalism dañ lëkkaloo seen liggéey yi daanaka benn la kon yaakaar naa ne dinaa ko mën a boole euh, su ko defee lu nga xamante ni mooy suma ngiseer ma mun koo àggale euh, rafet na euh, kàddu yi leer na wax dëgg yàlla seet na ci suñuy bopp ñu buggoon a xam Pa Modou yow gannaaw bi nga xamante ne yaa ngay def lii nga xamante ne moom mooy film bugg a génnee lu ama am solo ci pour njëriñu askan bi ñu buggoon a xam yow gan soo defee loolu ba pare comme what exactly do you want to focus on waaw comme man personne moo ma nekk di yóbbu. definitely because ñun ñëpp xam nañ ne film si Gambia melut noonu. Mhm. te ku amut personne doo dem. Kusi la. ku si amut personne soo ko commencé doo ko yeggali da ngay bàyyi waaye nag ñin suñ loncee lii suñ ko gén suñ génnee si lii am nañ yeneen projet yu nga xamante ni dafa taxaw te dañ koy def. dëgg ñin am nañ pas nasib comme ni ko Black Queen waxee man maa doon président yi Banjul filmmakers fii te baañul Banjul filmmakers ñi ngi link ak Sénégal bu ñuy wax Dakar ah dakaar Coup Dakar Coup nag benn waay bu ñuy wax Moli moo ko yore dañuy am festival bu mag bi biir dakaar yaa ngi dégg te lëkkaloo am na suñu diggante ak Sénégalais yi yi nga xamante ñoo fa nekk kon ñin suñ jeexalee projet bi am na leneen lu ñuy xaar lu rëy. dëgg waaw nag te ñun personne moo ñuy yóbbu. nekku ne dañ ñëw si film bi pour ne dañ bugg a ñëw.